ok asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu baax di leen siyaara di leen nuyuwaat fii ci a Salaam ëttu Mawlana Cheikh Seydi El Hadji Omar Ibn li Ndaw tey nag ñu ngi fas yéene àndaat ak ñenn ci waa ñiiri ni ñu présenté wu wax ñu ñooy ñan ak siyaare bi nga xamante ni ñu ngi koy def kañ lañ ko commencé def ak kañ koy defal incha allah sëñ Madick Dramé ñu ngi leen di nuyu di siyaare ñëpp di leen balu xaq Euh, di leen wax ne maanaam tànk yi ngeen di dox gërëm nañ ko sant nañ ko ndax siyaar bi comme ni nga ko laajee ñu ngi ko tàmbali di def 1993 ci jamono xalifa El Hadj Mouhamadou Mountakha euh, ci lañ tàmbali def li ñuy wax siyaare dugub fekkoon na nag siyaare sénéral nekk fi waaye nag biñ ñëwee siyaare dugub bi. ci mbaax ak kilifa yi fi nekk ak seen yërmande ci doom aadama yi moo tax ba ñu jël siyaari général boobu boole ko ak siyaari dugub bi fi mu nekk benn siyaar boo xam ne moom la def ci at loolu mooy sabab lii ñi nga xam ne nag mooy fédération bi nga xam ne ñoo bàyyi ko ñiilin e, ki nga xam ne mooy ci jiitu nekk suñu kalifa mooy El Hadj Babou kooku tey fédération bi moo ci nekk mag ki nga xam ne tey moo jiitu nag délégation bi indi ko fii ci Darou mooy El Hadj Soxna Dramé fekkoon na nag bi ñu fee euh, sosee fédération bi ki nga xam ne mooy suñu kalifa El Hadj Mamour drame moo nekkoon ci bopp fédération bi euh, yàlla dogal bi mu nelawee moom nekkoon fi ay ay kan kàngam yu mag ay muqaddami Cheikh Siraj Omar Ndaw yu mag ku demee ni El Hadj Babou bu Caaxu Séeri ak El Hadj Laye Dramé bu Bousra ak El Omar Dramé bu Kër Sadar ku ñuy wax El Hadj Ousmane Dramé bu Segre Secco ñoo ñëpp ci kàngam yi nga xam ne ñoo ŋànk li nga xam ne tey mooy fédération ñiilin ba ba mu toll fii ñooñu ñëpp nag fa lillahi alhamdu wa seen doom ak seeni i taalibe ñëpp ñu ngi ànd si ci biir fédération bi taxaw ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne bii fa tabaarakalaa koy na sax sax suñ jort ndax la nga xam ne tey moom la kalifa yi laloon tey ñoom loolu gën nañ koy taaral gën nañ koy rafetal garab yi ñu jëmbatoo nit gën nañ koy suuxat ba fa tabaarakallaahu lépp nekk na ker te loolu yëpp ñoo ñu ñu ko faggulee ci barkeeb ki nga xam ne mooy Maolana Cheikh Seydou Ladio Mandaw radiyallaahu taala anhu wa barakaatu xamante rek ñu ngi koy laajaat eh, jëm ci wàllu siyaare bi si organisation bi maa bu ñu koy amal nan lañ koy amalee kenn rek mooy toog xalaat ne war nañu def siyaare suba wala dañ koy def date boo xamante ni su jotee ñu dem waxtaan ci bala ñu ko jàpp wala déet waaw maanaam loolu dañuy def bu ñu àggee ci euh, dëgmal lolli ñu xalaat ne siyaare bi fi ne jublu ci jot na bu boobaa fédération bi moom mooy woote ab daje euh, su ko defee ñu daje ko ci kër El Hadj Mokhtar Soxna Dramé bu kër Sader foofu fi la ñuy daje lépp loo xam ne doomu aadama am na ko te mu war a jëm ci biir siyaare bi mu génnee ko foofu biñ koy départ communication yi ñu daan def ci wàllu média yi ci lañ ko daan def bu desee la des ñu garde ko suñ demee ba xam ne fi ne siyaar bi li ci des war na mat dix jours wala cinq jours ñu dajee ji fu ñuy wax kër Ibra toure ñu ngi ko daa jàkk di def nag kër Serigne Fane ci wetu euh, sunu baay El Hadj Mamour Gadda Dramé waaye bi mu fi bàyyi nag kër Ibra Touré lañ ko faral di def ndax kër Ibra dafa am lu am doole ci siyaar bi ku ñu wax Serigne Mor Sakho